mbokki téléspectateur Louga TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen télé bu yees yi le ñu tuddee Louga TV bi yoon nag dañoo wàcc si terrain bi dem fas yéene jàkkaarloog askan bi waaye itam taataan leen taataan seen i kàddu ñu àddu jëmee si télé bi le nuñ ko gisee ndaxte télé bi seen télé la ci noonu lañu wàcc tey ci suba gi pour wax ak ñi nga xam ne que ñoom ñooy téléspectateurs yi laaj leen nan lañ gisee suñ télé bi le Louga TV moom biñ ko déggee ñun mbégte lañu àndal ndaxte suñ ne Louga am na télé rek mooy ñun am nañu télé parce que dañuy jàpp ne kee créé moomatu ko waa Louga yëpp ñoo ko bokk ndaxte man mii dama koy moom keneen ak keneen da koy moom ndaxte li kuy jéggaan neneen sa kër moom moo tëgg te tey jii sunu kër moom moo tëgg muy Louga TV kon Louga TV sunu télé lañ ko jàppee tamit di si kontaan trop trop trop biñ déggee ni Louga am na tele tamit kontaan nañ si comme ni ñu koy déggee feneen ak feneen comme que ñun dañ doon yégg rek léegi gis nañu ni xam ne lii ñu ñoo ko moom duñ def lu lu kontaan si dañ si kontaan bu baax a baax di bég trop nag tamit li ñu leen wax pour conseiller tamit mooy kii ngeen jàpp bañ baay bàyyi ndax Louga moom amuñu lu dul Louga te Louga jàpp nañ li mu baax la yëpp ay doomu Louga ñoo fi def kon ay doomu Louga tey bu ñu diggaatee nii taxaw lu mel ni télé kon ñu dañ ciy kontaan tamit am ci mbégte trop di kontaan baas si yéen di wax nii yéen moom waaw jël ngeen ndam li ba pare parce que Louga am na télé rek loolu ndam la daanaka di ñaan yàlla tamit yàlla def télé bi mu dem ay nekk ay télé yi télé ñu leen dégg fu sori comme dégg télé yëpp rek. waaw dama leen di gërëm yéen. yéen maan yi di leen sant euh, comme niñ ko waxee tey it euh, dañu am mbégte tey bi ngeen wàccee euh, si dëkk bi di laaj lan la télé bu bees bi rapporté waa Louga télé bu bees bi liñ si gis ñun gis nañ suñu bopp ndax yaakaar naa ni buñ nee Louga rek war naa mën a am comme yeneen dëkk yi tele yu mag yi li ñu amee loolu dañ ko doon séentu comme tey gis nañ doomu Louga doomu njàmbur indi na ko fii pour bëgg a wane culture Louga bëgg wane lépp loo xam ne mi ngi si biir Louga loolu nañ dañ si am kontante daal beneen bi liñ si dolli mooy euh, nañ def le tout rek ba ñun jeunes yi ndax dañ ni euh, feccum xale bu neexee nday sa mbagee te it ñun xale yi ëllëg ñooy yor réew mi nañ ci fexe di gis suñu bopp waaw nañuy fexe rek da jeunes yi mën si gis suñu bopp si lépp loo xam ne muy culture lépp loo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko fi ñun xale yi ñu gën koo xam ñun loolu daal bu ñu ko gisee ci télé bi euh, te et puis ni mu débuté euh, gis nañ ko kontaan nañ lool ndax it yenn saa yi ñu gis yenn émission yi am si rajo bi ñu di ko jàllale yooyu da ngeen ci gëstu ndax rajo ak télé dafa bokkul waaw te télé moom moo si lañ koy mën a gën a sentir ndax am na mag ñoo xam ne ñoo si biir kër yi su ñu mënoon di ko gis ci télé yeet ñu neex lool daal waaw. nan dafa dëgg yàlla rafet la moom. rafet na trop parce que c'est la première fois lu am lu melni kon ñoo ñi nga xamanteni ci ñoo dekk lu dañ koy rafetlu bu baaxa baax ñun wax dëgg yàlla commencé nañ di suivre affaire ci YouTube ak yoy sax mais comme que instant yi télé bi doxna ba ñew fekk suñu ci Louga dañ koy sante yalla bu baaxa baax di leen ñaanal tamit nee na nekk ay télé télé. euh wa Louga TV maa ko doon deg après la dugu Play Store téléchargé Louga TV. ci laay xoolee yëpp li xew si dëkk bi lépp ci laa koy gisee muy télé am solo xam nga am na important trop sax waaw ci lay seetaan li ma bëgg a xam lépp li xew si Louga. Ah, waaw dama leen di sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal fan wu gudd ak wér gu ah, di ñaan tam li nga xam ne moo wàcc si réew mi mooy. Mhm. musiba ak bi. Mhm. yàlla teggil ñu ko. vraiment lii tam lu am solo la. man du ma def lu encouragé leen di leen sant di leen gërëm. di wax ne seen liggéey vraiment rafet na ndax euh, li ngeen di def nii euh, maanaam comme maanaam da ngeen di yee ndaw ñi et itam dangeen da ngeen ñuy gën a dolli jom ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si terrain bi di liggéey ak yéen te li ngeen di def nii itam vraiment man dama leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci kaw ci kanam. kontaan si waaw si dama koy seetaan nag. nan nga programme waaw programme yi am solo lañ ciy def. man wax dëgg yàlla ñu ngi may jàngal si lu bëree bëri bëri bëri. di may yee. waaw te itam euh, maanaam léeg damay xaw a am stress nii sax mais bu ma ko jàppee vraiment damay xaw a sama xol day sedd ndax liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ba tax na man tam maa ngi leen di sant di leen gërëm daal vraiment kontaan nañ daal man daal wax dëgg yàlla mosuma cee gis daal maanaam loo xam ne tàngal na sama xol wala leneen parce que su ma ko seetaanee daf may dolli daal waaw vraiment kontaan naa ci daal aw ma lenn lu ma ci metti daal lu di leen sant di leen gërëm. gis nañ ni télé boo xam ne si télé bu baax la. de télé bu jëmale askan wi kanam la quoi euh, de ñu ñu gën a euh, Pastef te Pastefu ci di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que lépp luy jëmale Louga kanam ci la bokk quoi waaw de ñu gën a yokku góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te xam ne Louga moom li ñu am kenn amu ko waaw ndaxte soo soo xoolee Euh, tey jii euh, yoon la ñun ñu mën a demal suñu bopp rawatina nag ñu am télé boo xam ne si dañ ko am fii ci biir euh, dëkk bi di ci di ci seetaan. ñun koy fi mu toll nii ñun ñooy ñoo jël ndam ni ñoo jël pee fi mu toll nii kay yeneen ni ñooy ñëw xam naa te dañuy dikk sax nag ndax Louga moom lu mu dikk rek da ci raw parce que Louga moom doomu Louga ci kanam rek lañ ko xamee ñun ay njàmbur njàmbur te njàmbur njàmbur nee nañ ci kanam la jëm te kon doomu njàmbur moom bu amee télé télé boobu yàpp nañu mooy raw ci kon tay buñu jéwo jéewoo ñu ne bes lalu, télé bu bess euh, lolu euh, dañ si am mbékté dal suma mon luma leen di ñaax dal ñu gor gorlu euh boole si doomi Louga ndax li nga ko wax rek sa wax début kuy yaan sa kër da teggul nañu fexé rek ba wa doomi dëkk bi doomi euh di ci gis seen bop ndax amna fi talent yo xamni euh fo leen wuy fo leen wo rek. mën nañ laa wuy daal loolu daal laa leen doon doon ñaax waaw. am fierté rek am fierté trop sax ndax loolu tamit dafa baax ci dëkk daal dafa baax ci dëkk trop waaw nga yeewu rek ñu ne Louga dafa am télé lool dafa neex daal neex na trop wax dëgg yàlla. programme yi tamit instant li ngeen commencé rafet na trop xanaa kay bu ngeen demee ba ci kanam rek gën a yokk programme yi yaa mu gën a xam rek waa nu gën a rafetee rek. Eh, yeneen télé yi li ngay li ngay fii gisee rarement ngay gis ay information Louga wala yooyu noonu nga koy xam si yeneen kii tey nag lii di la ko wan direct xam nga loolu tamit fierté la si ñun quoi fierté la si ñun quoi wax dëgg yàlla di gis di leen ci remercier bu baax a baax. liggéey set na sell na rafet na te ndaw yu am am yitte am Pastef ñoo ci nekk man dama kontaan si ñoom daal maanaam bu may wax sax sama xol dafa sedd ba mënuma parce que lii tey da ma bett ak bànneex parce que vraiment lii laa doon ñaan man dem ba sama dëkk am lii tey ma taxaw di ci wax ñëpp di ma seetaan man loolu laa bëgg tey yàlla nañu yàlla gën a dooleel. barke Cheikhul Khadim maa ngi leen di ñaanal nag fan wu gudd ak wér-gu-yaram di wax na seen liggéey rafet na kontaan naa si yéen vraiment aw ma lenn lu ma si naqari nag kontaan bu baax a baax. xam nga bu ñu demee ba toog ñu ni Louga tey am na tele loolu suñu ndam la suñ ndam la ak foo mënti nekk ci àddina rek da koo war a ndamoo di ko safoo di ko tiitaroo ci kaw ci kaw mooy que ñoom ñoom ñëpp nan daw dem foofu noonu parce que fi ñuy seetaan ñooñu intérêt bu ñu si am ñoom peut-être seen dëkk lañ koy yemale kon ñoom tamit bu ñuy seetaan fii nii ñoom pour seen dëkk la kon tamit am sa dëkk sa dëkk jàpp ndaxte ñoon ñoon am nañ fula de ñoom ñu ngi jàpp seen dëkk kon ñun waa Louga tamit am ñu lu dul Louga gisee lu nekk Louga ñun fii lañ war a ñëw te lii lañ war a jàpp ndax ñun lii lañ am tayit lu am solo la ko parce que man nga sori sa réew tey nee ko sa dëkk nee ko fa mais mën nga toog fa nga nekk di xam li xew ci dëkk bi yëpp ak Louga TV xam nga même man mii lépp si laa koy xamee maa ngi fii toog mais en tout cas lu am solo la loo am important la quoi. su ma leen waa ngeen gën a góorgóorlu rek jàpp te ba bàyyi ndaxte loo gis day métti mais tamit incha allah lépp day passé waaw yal na yàlla def jàmm rek. ah loolu daf dolli quoi parce que nekk na loo xam ne si lu rëy la de ndam la ci ñun daal suñu feexte la de defe naa feexte la képp koo xam ne si doomu Louga nga ak fépp foo mënti nekk ci àddina. tey jii yow sa ndam la quoi ndax ngay seetaan di gis li nga xam ne si bokk na ci xew-xewi biir Louga yi moo xam nga nekk bitim réew wala nga nekk euh, faneen wala nga nekk a foo mënti nekk ci àddina bi nga koy teew du ko seetaan loolu dim lu am solo la ndax am na yoo xam ne si bi xëy na ñun suñu bët du fa yegg télé bi moo ñu fa mën a yeggalee waaw kon nag ñun amuñu lu dul jàppale leen waaw ci lépp rafet na lool lool dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ni ci ñëpp jàpp ndax télé bi mooy suñu télé de suñu ndam la non kontaan ak ndam la si ñun waa Louga ndax ndam la si Louga gi yëpp te dañ koy sante yàlla ndax euh, doomi bu du dara doomi Louga maanaam dañoo nangoo liggéey te ay bañkat lañ moo tax man ma kontaan si Louga parce que bari na boo demee si yéen dëkk boo gisee ñu ne njàmbur daanaka dañoo jàmbure te dañoo nangoo liggéey yaa ngi dégg kon ñun buñ demee ba am Louga TV si suñ biir dëkk dañuy kontaan sant yàlla la ndax bari na ñoo xam ne tey bëgg nañ lii mais mënuñu ko am rawatuñu ñun yàlla jox ñu ko kon dañuy sant yàlla subhaanahu wa taala di gën a ñaan yàlla gën ñoo dooleel waaw man daal loolu laa am lu may wax loo xam ne man vraiment kontaan naa ci vraiment di gën a ñaax daal maanaam suñ doomi réew daal ñu gën a góorgóorlu daal waaw gën a góorgóorlu gën a am jom xam nga man daal loolu laa am lu may wax daal waaw ay programme programme moom mooy programme yu am rek comme Louga moom bëri na dëkku diine la tamit aussi surtout wàllu diine bi maam ñi ciy gën a insister parce que Louga tamit su nee Louga dañ naan ku mel ni maam Cheikh Mbaye Soxna Astou ñooñu ñëpp ñun fi tëdd Serigne Abbas comme tey Louga am na la nga xamante ni bu fi télé amee rek ñoo war nañ cee dox seen waar bu baax a baax a baax comme maam ci àll kilifa yooyu yeneen programme yi tamit yi nga xam mënul ñàkk tamit peut-être ñu ngi ciy boole mais côté boobu moom yooyu moom na ci gën a kii am doole. téléspectateurs yi comme ni ko waxee woon ba ñuy door wàcc nañ ci terrain bi dem tàllal suñuy micro ñi nga xam ne que ni ñoom ñooy suñuy téléspectateurs waaye ñoom aussi àddunañ jëme ci Louga TV nag pour résumer ab télé bu bees la télé la boo xam ne que ni waa Louga yéen ko moom ñun ñoo leen ko indil sax ñun ñoo leen ko tegal leen ko fii seen télé la de kuy jéggiyaani rek sa dëkk dafa tëggut te Louga TV télé la boo xam ne que ni yomb na pour nga am ko que ni à l'heure actuelle doomu Louga fu ti nekk rek mën naa am télé bi nga xam ne moom mooy TV di ko seetaan nu ko neexee te Louga TV télé la boo xam ne que ne ñun waa Louga ñun ñoo ko moom suñu télé la donc bu ñu nangu kenn diñu ko yàqal ci loolu weesoo ma di ziar bu baax a baax ñi nga xam ne que ñoom laa àndaloon muy sama cameraman yi Seydina waa itam Rama di nuyu suñu techniciens yi nga xam ne que ñoom ñoo ñu encadré ku ci mel ni Ablaye Lo waaye itam Mbacke Mbodj ndaxte olof Ndiaye danaan liir suñ feccee neexee yaa jaa jàpp sa wagg ya donc ñun lu ñuy def nii muy neex nii di leer ñoom ñoo tax donc di leen ziar bu baax waaye itam di rafetlu aussi seen initiative bi nga xam ne que moom lañ def waaye seen karante bi nga xam ne que moom lañ nekk di defal fii ci diwaanu Louga donc di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci suñu beneen reportage